ba jur na coow am na ñu voté am na ñu absteniru am na ñoo xamante ne ànduñu si mais noonu la politique bindoo te damay jàpp rek di leeral ne Khalifa Sall yoonam la topp ndax dañ ko xañoon ay axam ak yelleefam jamono jug nag président laajaatoon naka ak nan la ñu war a mën a def ba seddal la nga xamante ne mooy espace politique bi damay fàttali ne réew mi 88 ñu bari juddooguñu mais ka bëgg a politique da ngay gëstu la xewoon démb Georges Nesta su ma jumul 88 fekk na la fi. Mm. mooy époque ba nga xamante ne classes yi dañ ko tëjoon rap. Mm. muy université muy lycée yi. Mm. kenn jàngal ñëpp ñëpp ñëpp toog ca kër ya. loolu yaakaar naa ne yegg guñ fa. te la ko sooxe woon politique la woon. te boobu loolu ba muy jeex ci taabal la mujje ñu waxtaan. guerre 14 18. 39 45 39 45 maa ngi seetaan benn documentaire fan yi si Hiroshima ak Nagasaki. ba fa États-Unis wàccee bombe atomique fa la guerre bi mujjee ci taabal waxtaan donc am na loo xamante ne mënuñ ko tere nit ñi def ko waxtaan ba jàmm am ci réew mi man dama nekk xale yàgg politique parce que war na mat fukki at ak juróom benn saa ñu demee ci këru diine yi muy président Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee diw troisième mandat ak président Macky Sall bi ñu nee dafa bëgg troisième mandat mm-hmm. la ñuy wax kilifa diine yi mooy na président woote ñu waxtaan képp kuy politique daa nga ko wax donc ñun yoon ba ñu nekkoon démb ak barki démb te réew mi baaxoo ko ci politique ci aada ak ci cosaan waxtaan dem nañu fa ba président lam fa wax moo doon bu ñu waxtaanee ba juboo la ca ëpp solo te mu mën a jëriñ réew mi dinaa ko jël appliqué ko te je pense loolu mu ngi ci oui. donc mbir yi nag ay procédure la procédure mais c'est la forme en amont ban forme pour dem ci waxtaan bi mhm. da ngeen bokkoon ci kuréel waaw kuréel googu am ñu jël seen euh, ngeen waxtaanee am yoo yoo xam ne chaque jour yéen xàccandoo di dóorandoo mhm. mais cette fois-ci vous avez fait euh, cavalier solitaire demal seen bopp ci waxtaan goo xamante ne ñoom kuréel googu ña ca ëpp bokk mhm. demuñu fa yéen doo nga fa bendeku dem ca waxtaan googu le Yewwi la bokk Khalifa moo sos Yewwi askan wi dëgg yi li ko sos am na am na am na. Cheikh Bamba Dièye nee na sosu ko. moo ko sos noo xam nga sos naag sosul saa su ne kenn ku nekk da ngay bëgg jël minaan mi féetale ko sa bopp. waaye ñun la ñu ñor mooy xam nañu kañ la woon naka la ak nan la ak naka la tàmbalee waaye man laak du man puusal jant bi yaatu na loolu ñun yitteeluñu li ñu yitteel mooy euh, këyit ya tënkoon Yewwi dañu waxoon ne Yewwi lépp lu ñuy dëgmal maanaam buñ ci jubóowul duñ ci àddu. maanaam consensus la ñu waxoon ne mooy le mode de prise de décision maanaam dañuy wat gaal yëgoo ñëpp àndandoo mën a liggéey waaye poñ bi parti bu nekk la concerné Khalifa Sall ñaata at la def Yewwi kan nga mës a dégg ci biir coalition yi ci lañ bokk nag ba tey ma leeral ko mu jug ne xalifa sàll ay axam ak ay yelleefam dañ ko war a delloo déedéet kenn jugul kaas ko lañ daan def mooy. Eh, defal naa maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. maa ngi ñëw président de defal naa maa ngi ñëw. maa ngi ñëw may ma ma leeral non loolu président Sonko moo ne woon dinañ xeex ba xalifa sàll ak Karim Wade am amnistie. waa PDS Sonko ne no xaaral rek déet xaaral xam nga wax bi am na mais jëf bi dox ko yëguñu ko gisuñu ko la ñu gis mooy ñay yolleeg dem seeti xalifa Sall ca këram ne ko dañu bëgg nga jàppale ñu ci élection 2024. ñu bokk yeewi mais loolu naka lañ yolleeku dem seeti dem pour mu indi leen un soutien en 2024. ñooñu ñan la ñooñu ñan la seen bopp. Ah, non pour plus de balaa même pour plus de mm-hmm. clarté mm-hmm. ma ne loolu lañ doon dundee léegi yow boo nekkee ci coalition mais ma daaneel foofu leeral nit ñi mën a xam li xew. Mm-hmm. nga nekk ci coalition. yow lijjantiw ñu yow la nga xamante ne moo tax nga sos sa parti politique muy la conquête et l' exercice du pouvoir ci ay jikko ak ay valeur nga ñëw ñu ne nañu waxtaanee. ne nañu dem dialogue mais Issa am nga sañ-sañu bu nit ñi d'accordul nga am sa fulla ak sa fayda jël sa destin am ma dem waxtaan mais tey ña bañoon waxtaan wi ñu ngay waxtaan ci suuf tey Pastef am na banqaasam yoo xam ne taxaw nañu woote ne nañu waxtaan na président Macky Sall waxtaan pour jàmm mën a am solution mën am fan yi ku bind lan ngay bind ne le Pastef wala Ousmane Sonko est un homme de paix et de dialogue mais loolu naka ngay bëgg yow waxtaane ci say anam yàlla intéressé ña nga xamante ne dañuy waxtaan ak sénégal sénégalais ci bëccëg ndar kàmb ñëpp gis ko nga am courage dem defendre opposition bi la metti F24 nga dem porté ko ci dialogue bi law tax Ousmane Sonko war a bokk nga dem kaas ko wax ko wax ko en commission ci biir dialogue bi mais loolu kaka def wàcce nga. mais moo tax ngeen ne ko dañ leen a beddi ci yeewee askan parce que dégg nañ. non ngay wax que dañ leen a beddi daanaka yëgalutuñ leen dara. beddi bi mooy président Khalifa Sall dafa tekki nomba tànkam ci biir yeewee. ñu ànd jébbal ko Habib Sy te bañ koy jébbal président Habib Sy dañu soppi sart bi tënkoon Yewwi maanaam Yewwi PUR bu sëñ Moustapha PUR euh, Pastef bu Ousmane Sonko wala taxaw bu président Khalifa Sall ñoo waroon mën a ànd jiite ko kenn ci ñett ci ñoom. ba xalifa Sall nag tekkee kenn ba tànkam pour dem mottali yéeneem ca la ñu jël soppi charte yi jël président Habib Sy dénk ko. mais la tax ancienneté quand même mun nañoo nangu ancienneté non non loolu bañal luñ ko war na tax ñu jël Habib Sy sargale ko bañal ko ko moo tax ñu soppi ko ñëpp nangu ko déggoo leen ci kàddu mais la nga xamante ne moo sos yeew yi dañu ne woon ñu bañ a teg loo xamante ne day def compromission wala compromis ak président Macky Sall mais compromission kay mooy la ngay dox ci suuf di ko lijjanti di ko lañ bëj pour sa mbiru bopp mais yow loo wax publiquement ne dinaa ko defi nga laaj say base ñu jox la mandat est-ce que bi ngeen lëjmbatee ci suuf ba pare ndax Bart wax na ne yàgg nañoo waxtaan est-ce que du lu ñu lëjmbat ci suuf ba pare la a fësal ci kaw bi ñu demee xam ne ne mënatul Dias ñu siwal ko ci kaw xam nga Barthélemy Dias laaxatuwul mitigu Parcelles Assainies la taxaw ne président Macky ba ginnaaw leader yëpp opposition wax ko ne ñu ngi lay woo ci waxtaan pour jàmm mën am ci réew mi ñëpp bokk Barthélemy am lu courage politique taxaw Parcelles Assainies ne président Macky Sall ñu ngi lay tàllal loxoon nga waxtaan ak nit ñi les faits sont parce que ñun it bu ñuy wax nañu wax ëllëg loo xamante ne suñuy nawlek suñuy rak du ñu si ci politique ndax wax dëgg yàlla fii moom ñëpp dañu am seen a ngor judduwaale ko di ko wayaale nag ndax politique moom jaral jaraluñu soppi suñu jikko ndax bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu wàññiwul du ñu yokk maanaam ñun ñooy jëf ci politique mais politique mënuñu yàqal suñu ngëm-ngëm ci diine ak suñu am am ñun ñooy jël la ñu am di ko ci def Barth ba mu defee loolu ne président tàllal nañu la loxo boo jëlul loxo bi ñu lay tàllal ñun opposition bi kurpaña lay dal loolu lu tax jamono jooju nit ñi newuñ Barthélémy kenn santewloo ko waaye dañ cee àndoon muy président xalifa Sall bi président Macky nangoo woote boobu jaare ko ci Barthélémy dem di waxtaan ak moom barte dafa am mat taggu président xalifa Sall mu ne ko waaw mu am ak mat taggu président Ousmane Sonko mu ne ko boo demee nel président Macky Sall nangam ak nangam ak nangam Barth dañ dem ba ne ko wax ji jaratu ko mhm. parce que boo waxee ñu dëkkal la foo dëkkul te secret gor boo waxeen taane ak gor ba tënk war nga jomb génn ko ci place publique donc Barthélemy dañu dem ba ñun ñi ko jege ne ko mbir mi jaratul nga ci àddu. nañu mais bi tey jii kon est-ce que gënul ñaaw sax denc loo xamante ne jot nañ ko waxtaan gis nga li ñu daj ñun waa kër Khalifa Sall 2017 ñu tuumaal la te ñëpp ñi lay xarab tey démb ñoo la doon défendre tey ña nga doon xarab ngay jël di ànd ak ñoom loolu naka lañ kaa tudde euh, ñun mosoo leen dégg képp ku farek Khalifa Sall ak ni Khalifa Sall yàgg ci politique ay ñoñam di saaga ay nit wala di toroxal ay nit ci réew mi loolu mosoo leen kaa gis. Mm-hmm. donc am na loo xam ne tey. bu sosoo ñëpp xam nañ fa mu sosoo mais na Sénégalais am courage ràññee xam la nga xamante ne mooy la ñaaw li nga xamante ne ñaa ngi koy fan la jóge ak fan la soxla. mais baaru tas seen parti bu fekkente ne bu ñu dugalee code électoral bi bu ko voté nii à l' état. ni ñu ko bindee nii ñun liñ jot a gis. Khalifa Sall mën na dugg ak Karim Wade mais boo moytuwul xëy na kaawu Sonko euh, peut être juridique mën na jóg on sait pas lan la wax. mais mm-hmm. yaa ngi dégg nit ñi naan bu ko voté nii boo moytuwul mën naa bañ a bokk ci élection yi. xam nga finalement est ce que kon yeewee askan du far tas benn yoon. seen moo si suñu moo doon dem ba sa dialogue ba ca waxukaay ba wax président Macky Sall ne ko waroo bokk def nañ ko mooy dem kaasal ñi nga xamante ne président Macky Sall ca coobareem euh, teg na leen ay daan ci élection yi ñu weesu muy 2019 muy Karim ak Khalifa Sall ñu amaat seen i ax ak seen i <coughs> waa sénégalais du ñoo doon wax naan ñëpp a war a bokk. Mm. waa léegi nit ñi waxtaan pour ñëpp a bokk ci publiquement ñu wax ko filmer ko waa léegi ñu ne nit ñi lan moo tax ñuy euh, lan moo tax ñuy bokkaat kay président Ousmane Sonko Saliou Sarr laa jël seede. ba ñuy réunion guddi gu jot di def le point maanaam di saytu dialogue bi lu ñu wax lan la ñu war a tontu lu ñu war a liggéey ndax ñun noonu ñuy liggéey ci biir taxaw du Khalifa Sall yor yor ñu kaddu wala soob kaddu di buum di buum mi loolu ñun xewul ci ñun. mais lañ wax saalu saar mooy la nga xamante ne moom la ñu waxtaanee woon ak opposition bi muy ñëpp a bokk doolu président Ousmane Sonko te article 57 en principe concerné ko mais loolu ñun dañ ko kaas mais mënoon nañ ñesee bañ a fekk ndax ba ñu dañuy dem dialogue lañ ci déggul amul. donc am na loo xam ne tey wax dëgg yàlla du jukkoy nit yu nite. Mhm. te bu ñu nee dañu bëgg a soppi nag politique ci réew mi non am na lu ñu war a jomb def. muy parce que waroo wanam wax ne man Issa li ma xalaat la Awa di xalaat moom la George di xalaat moom la Issa Tine bi di xalaat loolu si li ñu indil ab jafe-jafe ci biir Yewwi loolu ca la bokk. <laughs> donc am na kan moo ko fay def hmm? non dam dama joxe exemple may may ko mooy comme parti Pastef tey Pastef tey Pastef tey boo àndul ak Ousmane Sonko mais ñu xarab la. da ngay jël exemple Mimi at ci ginnaaw musul xas kenn non non musul xas moom dafa ne ay nitam focus mais ay nitam ñoo déggul daaj ñoo déggul ñoo déggul déedéet mais loolu dafa rafetul Khalifa Sall gor la Barthélemy gor la bañ ma waxee jamono dama leen bu leen tontu ñi ab fans club la ab fans club la ba nekk biir Pastef donc tey am na loo xam ne wax dëgg yàlla euh, li doon yanu maanaa mooy bu dee da ne da nga bëgg a soppi mais suñu gisee leader yu mel ni ñoom Barthélemy génn yëkkati yenn kàddu yi jagleel ko Ousmane Sonko ñoom est-ce que yaakaaroon ne euh, looloo tax ñu tontoo li ni mel. mais jure bi fan la tàmbalee xeex bi fan la tàmbalee ñaari nit ñoo wax man yëguma lu ma jege jege jege Bart barte am na bàmmeelu biir tee mais président Ousmane Sonko moo génne wax ji mi tontu tontu tontunte commencé am ñu ne que nag meeram Ndakaaru nga am na laa xam ne du sab cër bàyyil nga teg ci suuf ndax am na lu ñu gën a yitteel te nee naa fa may daanele mm-hmm. muy lu am solo. bu dee da nga ne bëgg nga tegaat réew mi état bi si njub cig dëgg mais da koy wane ca ndorteel ba ca njël benn ga mais njël benn ba ka ka wax pirip àndoog yow <laughs> la nga wax tam nga ko dëmm nga jégal ma ci kàddu gi wala nee nga ab warkat la dañuy jël nit solal ko mbubb bu warkat condamné ka wax na yaa wax te waxoo wax na yaa jëf te jëfoo te ñun la ma wax moo ci nekk waxtaanu ñu guddi bëccëg la ñu waxtaan bëccëg ndarkaam ñëpp addu si Sénégal gi yëpp no moo tax gisuma li jar ku nekk di xarab sa moroom ci anam yoo xamante ne sellul d'accord tey euh, Georges rapidement en une minute ñu ngi def signe on a des pages de pub mm-hmm. euh, l'avenir de Khalifa tey jii par rapport ak euh, problème bi nga xamante ne tey jii judd na au sein de Yewwi waaw bo man euh, sama position par rapport au, par rapport ak li xew ni sein de mm-hmm. position est très simple man Yewwi c'était une alliance stratégique électorale pour les élections locales ak législatives dépasse nañ ko élection présidentielle. dañ ko war a tas. dañ ko war a tas oh. man c'est ma position parce que ku nekk bokkuñu bokkuñu euh, bokkuñu. horizon horizon bokkuñu mm. objectif bokkuñu intérêt ku nekk si ñoom c'est intérêt moo tax tu as vu euh, dialogue 2019 euh, bi. boobu PDS dem loon parce que doon exiger que xale euh, que Karim Wade soit candidat oh. donc leen dem nañ si dialogue bi daa daanaka bokkoon si promoteurs yi hmm. parce que seen eh, il la hmm. te bon dialogue aussi kenn du wax ne on a été de tous les dialogues voilà d'accord suñu boycotté dialogue ok donc de façon le dialogue <laughs> man le dialogue je trouve le dialogue est très important même nit ñaar nit sax bu ñu toogee ne maax uh-huh. yow mënatuñu juboo parce que du ma waxtaan ak yow mënuñ juboo mais faw ñu toog jour bu ñuy juboo faw ñu toog mhm. donc ñaar ñu waat sax du ñu juboo uh-huh. bu ñu bëggee juboo dinañu toog